السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينبوك هيد لكل في يفتعو ما خلاتون جمعون ينو دجي وقتان وانا اكو سيخ برس تفضيلة وقتان بناك بدال آه، بقول نو قنا دف سن خلاك ndax dëkk bi fa tabaarakallaahu ñu baax ñëpp ngi fi jëm si waaye ñu bon ñëpp ngi fi jëm si loolu nag kon dana laaj taxawaay bu rëy eh, eh, bu tax eh, dëkk yi mel ni mu war a mel ci at yi ñu weesu am na sunu mbokk sunu doomi bàjjen ji fi nekkoon moom moom amoon yitte lool sa am ñu màndal di wusite ñu bon ñi fii dugal ak ñu bon ñi nangam nangam yooyu yëpp wax dëgg yàlla góor loolu la ci woon waaye nag ci jamono yee maa ko ne daal léegi na nga tëye sa loxo na ngeen toog ndax baat de su ko bokk sécurité bi benn rek lañ mën a doon kon na nga toog daañu seet nañuy waxtaaneek ñi nga xam ne ñoom la fa yàlla teg ci yor loolu moom loolu laa ko waxoon gannaaw bi laa doon waxtaan ak Cheikh Bass daal loolu xalaat naa ko bàyyi ko ci moom xam naa moo waral nag tey mu jàppoon bis bi moom mu war fee daje kon nag loolu rek la noo ngi ciy am cant gu rëy ci teewaay bii ngeen teew it yi ngeen am jóg gi ngeen jóg ñëw ngir loolu man noonu ci ngi ci yey sant yàlla bu baax ak ci am mbégte di leen sant di ci gërëm kon noonu rek la yàlla def na sax pëcc fan yu bërkaati démb rek président jot na ma bi ma jotee nag wax ko nii mu daal di ko mu def ci yitte lool ne ma nag loolu dama koy daal di wax Moussa Fall noonu dama ko waxee daal di dana dana dana daal di jublu fekkoon na njataay bi ñu ne xalaat ji jiitu woon waaye fekk na loolu dugg ci biir lu jiitu jataay bi kon waaye yéen alaakulaa noo ko bokk. ñoo ko sëq moo fi nekk kon nun nu war a ànd eh, eh, gën a xool teg suñu bët ci dëkk bi gën a gën a def suñu yitt yi dëkk bi ba mel ba mel ni mu war a mel ni mu war a mel borom dëkkub jaamu yàlla dong la ci biir fu mu jaamu yàlla rek fu mu jàlloo yàlla jaamu gu sel man faa yar nit ñi yar bu sel seen diggante seen borom loolu dong moo tax mu sañ ci dëkk bi fii ñëw dafa xuus ba ñëw fii am na ay fan kenn gisu ko mun a ci àll bi te loolu dong ko taxaw na jóg comme jaamoo yàlla képp xam la fa yàlla yar fi yar nit ñi ci yàlla gindi leen ci yàlla womma leen jëme leen ci yàlla loolu donc ko fi indi woon loolu nag ba léegi tey tey tey tey jii lañ ko gën a bëgg dëgg la dem na bàyyi fi bàyyi bàyyil na fi loolu waaye nag yi jooyee tey nu itam noo fas yéene nekk ci loola te te te te te te te gën a gën a bëgg lam fi bëggoon nag te ku gën a bëgg rek nag suñ kem kàttan loolu nag liy wér mooy ni ma ko waxee woon rek baat de su ko bokk duñ ci mën a jéemee jéem ci suñu yitte yi boobu di ci ceeb fajal seen bopp suñu bopp dara loolu moom laa moom laa moom moom laa dogale ndax moom loolu ci noo ngi ci woon ñu ngi ko doon xalaat waaye loolu moom maa maa ko dogale neen baat de su ko bokk kon sécurité bi benn rek lay mën a doon kon nag loolu moo waral jataay bi nu ngeen xamee ko noonu xam ne eh, lépp lépp dëkk bi eh, bàyyee nañ leen ko dinañ ñoo leen ci déglu itam ngeen dimbalu ci seen kéem kattan lu ngeen ci def yàlla rek ndax yàlla ngeen ko defal ndax sëñ Tuubaa yàlla rek ko fi andi woon eh, boolewul ak dara yàlla loolu kon lu fi waaye def ci lu baax yàlla nga ko defal te yàlla lay fay kon loolu rek baat yooyu kàddu yooyu rek laa bëggoon nu daje eh, waxtaane ko euh, ngeen jëlee ko ci man xam ne noonu mbir yépp noon rek la demee waaw daal moom mm, lépp yéene ko dëgg la yéene ko moom waaye bàyyee gën leen leen gën leen ko bàyyee waaw dinañ ci déglu itam nag waaw ci ànd ak yéen nag ci bëgg nag rek ci bëgg rek ci bëgg rek lañ ci mën am ci ànd ak yéen ci bëgg rek dëkk bi mel na war mel ci lu baax rek nag soxla wu ci dara njubadi di ñu bàyyi leen xel eh, ñu yàqu ñi ñu bàyyi leen xel ñu ñi nga xam ne dañuy yàq ñu bàyyi leen xel loolu yëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jëf ci dëkk bi kon ngeen dimbali ni ci loolu daaw loolu seen seen cër la seen liggéey la te te bëgg nañ ci bëgg nañ ko mën na koo ñàkk yéen ñi fi ne yàlla def nga xam ngeen yéen am taw fa ñëw fii ci ci sëñ fi ñëw fa sëñ sëñ Tuubaa euh, ngeen góor ci góorgóorlu bu baax a baax lu ngeen ci def rek yàlla ngeen ko defal ndax suñ Tuubaa boolewul ak yàlla kon lu ngeen fi def ci lu baax rek lu baax dëkk bi lu baax dong moom lañ ko sañc bu mu agsi bii kon nag lu ngeen ci def ci lu baax rek yàlla ngeen ko defal yàlla leen di fay ngeen jëf loolu rek

noo bokk liggéey bi noo bokk Sëriñ Tuubaa waaw noonu rek la dem jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf